ñun ñëpp nañ jóge fii. asalaamaaleykum. mbokk Thiamène a ngi leen di nuyu seen ziar. ñu leen di a baax ci sama ñëw tey fii ci lu mu xat xat xat bëri na fu a dem nii. mais lu mu xat xat dina ñëw Thiamène. nembeeku waa Thiamène nuyu waa Thiamène saafanto

benn gox nanguwul kenn ëppale kenn raw te def naa caameen bi ñu def bu ñu jëlul premier nit dina ma jaaxal donc bravo ci mobilisation bi bravo ci seen taxawaay bravo ci seen ngëm-ngëm bravo ci seen dignité bravo ci ngor ñi ngeen wane parce que dañoo toll ci jamono joo xam ni Sénégal moo soxla ay doomam te ci ngor la leen woo ci jàmbaar la leen woo ci fulla la leen woo ci fayda la leen woo kon képp ku wuyu sa réew ci yii ma lim nii dama bëgg nga tàcc sa bopp te xam ne wuyu nga sa réew ci valeur yi nga xam ne valeur yooyu moo ñuy jëmale kanam li ñu nekk di def du politique bu doon politique la man du ñëw yàgg nañoo gis ay politiciens ñu yor ay kàkkat yor ay mallette def seen ay convoi un kilomètre boo xam ne oto bu nekk cent cinquante millions lay jar te daawuñu ñu gis. dama ni lii borom politique la kenn duñu fi gis dafa nekk leneen loo xam ne moo raw politique dañoo tolloon ci jamono joo xamee ni il fallait que doomu réew mi yëpp jug te damaa bëgg ñu tàcc ndaw ñi parce que ndaw ñi seen taxawaay moo libéré le Sénégal gis naa fi léegi sama benn frère boo xam ne man ak moom la bokkoon prison ndaw ñi buñ jugal woon taxaw lambaay dina ñaaw. parce que réew mi say say yi yàqoon nañ ko ba noppi ku mën ne président Ousmane Sonko ñu tàcc la bu baax a baax moo yëngal ndaw ñi te ci lim leen woo suñu papa yi ci loolu la ñu yar suñu papa yi buñ sañoon buñ ñuy gis tey ñuy topp ci kenn ginnaaw kenn dañ daan ko papa kii dañ koy topp parce que jàmbaar la papa kii dañ koy topp parce que fit la kii dañ koy topp parce que xam-xam la. kii dañ koy topp parce que duggul ay ger dafa woon nit ñi ci dëgg loolu mooy tax sunu baay yi bi ñu gisee ñu ànd ak président ne leen dem leen waajaa xamante ne nii ñoom ñoo ànd ak ñun ñett ñu taxaw ñaanal ñun ànd ak ñun parce que ñii ñëpp kenn du ci def politique xamuñu luy politique. politique intéressé wul kenn ci ñi nekk nii ku ci ne dund nga ba ak sa biir mosoo bokk ci politique mais dañoo tolloon ci jamono joo xam si ni il fallait ñëpp jug taxaw. buñ ko deful woon pétrole duñ xam nu mel gaz bi duñ xam nu mel zircon bi duñ xam nu mel or bi duñ xam nu mel diamant bi duñ xam nu mel lépp la Macky Sall di jël jox ko Macron ak yeneen yi. suñuy papa yi suñu yaay yi confiance bi ngeen di jox ba ànd ak ñun parce que tey foo dem jigéen ñi ñooy ëpp. te jigéen lépp lu mu bokk yàlla barkeel ko donc jigéen ñi nga xamante si nii projet bi fu mu dem jigéen ñi ñoo ko fa yóbbu soo demee sur les réseaux sociaux. soo demee lépp loo xamante si ni ci doon ci réseaux sociaux yi lu ëpp doole la ak ci TikTok bi jigéen ñi ñoo ko yor te ñoom dañoo foogoon ni mënuñoo nax góor ñi mënuñoo nax suñu papa yi kon nañ dem ci jigéen yi ñu nax leen ci groupement yi ci GIE yi ci association yi. donc yéen ñi nga xamante si ni yéen loolu kenn mun leen a gor kenn mun leen a parce que ay gor ngeen. ay borom dignité ngeen ay borom fulla ak fayda ngeen yéen ñi nga xam ne yéen a wan ginnaaw politiciens corrompus yi. ñi nga xam ne dañoo fogal ni seen junni junni mën naa jënd yéen jigéen ñi ne ñoom ginnaaw damaa bëgg ngeen tàcc seen bopp bu baax a baax. wax ji soxlaatul muy bari man Mor Talla Gueye nag bi ma remercier ñi ma àndal di si jiital suñu grand frère Matar Xasila bi nga xam ne moo ñu yar moom ma ànd góor ànd ak sama frère As Jobe Sila ànd ak waa ànd ak waa Mourchid di gërëm Mati Ñawa ànd waa GPS di gërëm Cheikh Diallo ma ñëw fekk fi Ndiak Sarr fekk fi Aliou Fall ñoom ñëpp ñu nekk ay responsable ñoom boobu am naa bu tudd ay bi maa ngi lay bu baax a baax ndef donc di wax responsable yi ma fekk fii liggéey bi ñu def moo waral mobilisation bi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp seen taxawaay bi ñu am ba foo dem dem di nga ko fekk benn base bu solide te ñoom responsable yi ñoo ko liggéey man nag li ma bëgg a wax mooy man Moctar Gueye bokkuma ci benn clan ànduma kenn ci lu dul Pastef ak patriote xeexuma xulóoma bokkuma ci benn clan clan bi ma bokk mooy clan bi yóbbu Pastef ci kanam clan bi yóbbu patriote yi ci kanam clan bi koo def combat bi loolu laa bëgg mu leer te dama bëgg ñu xam ni ñi ñuy doon tapp leen muy abdallah Lahad suñ ko joxe respect jox nañ ko présence man soko parce que moko ko donc kep ko xamante si nii ñëw nga tawal présence man soko mu nek Abdou Lahad bi nga xamni mo mo nek titulaire bi mu nek Abbas bu ndjay bi nga xamante si mo moo nekk son suppléant ak ñeneen ñi nga xamante si ñëpp dem Ousmane Sonko tabb na len kep ku len teural teural nga Ousmane Sonko kep ku len teural lu teural Ousmane Sonko donc du ñak nak ay nit bu ñuy ande dina am.

ak autorités yi nga ci bi a baax ay jabar ngeen cette génération bi cette génération bi cette génération bi vous êtes cette génération déterminée décomplexée gëm seen léegi nag nañ continuer ci dynamique boobu noonu ba le 17 novembre ku nekk ci yéen bu demee na def campagne kanam na wax ak ay doomam ñii nañu wax ak seen jëkkër réew mi waratuñ fee fal ay kàccoor ay reykatu nit waratuñ fee fal ay Macky Sall ay Amadou Ba

dañu war a dem ci assemblée boo xam ni la loi si dañ ko war a yëkkati parce que Sénégal du réew mooy xool ay doomu senegal dem jënd seen gànnaay gi ci la ñuy dee. tey jii dégg ngeen benn ministre bu génn àdduna amoon ñu ci am ay doute bi ñu defee autopsie ba pare autopsie bi nee na dee gi ci lu mu njort du daaw naturel bu dul daaw naturel daaw la bu dul daaw naturel daaw la dañ koy bañ a wax di tooñ ñun ñëpp suñu xel xam nañ ci leen dem. donc lii ñuy xeex dañoo bëgg genre nit yooyu dootuñu amati ndomba tànk fii ci réew mi ku mën a posone nit ku mën a jël fetal rey say doomu sénégalais indi say nervi jox leen ay armes ku mën a jël ay juges tourné leen contre peuple bi leen di fay ñu mel noonu waratuñoo am ay ndomba tànk assemblée nationale waratuñu am suñu ministère yi donc.